RFM Matin. émission Billet yee Sénégal. RFM Matin 7h40 euh, sunu gan Alaaji Mansour euh, Jacques Sagna euh, lord Alaaji man salaamaaleykum. Alaykoum salam wa rahmatullah sëñ Babacar maa ngi lay màggal di la ziar. ziar wa wa RFM ak nit ñi ñuy déglu yëpp. sama xarit buma ma gëj a dégg la nak waaye nak maa ngi koy ziar. waaw bala ñoo dem ci liñ la fi. invité sax euh, gis nga la xew Màkka ren. Mhm. Euh, lopp junniy bakkan rot fa ndax tàngoor la am na lu mu lay fàttali 2015. <laughs> Euh, waaw di fàttaliku gu gu gu tiis. waaw fàttaliku bu bu tiis la waaye lépp rek mu ngi tegu ci jëm ci suñu boroom suñu boroom moom lépp lu waaye di def te ne ci yoon bi rek. Euh, ngëneel la donc ñi nga xamni dal dess des fa yalla yalla yeureum yërëm leen xare leen àjjana te di ñaanal ñi nga xamanteni ni seen yéene mooy dem màkk yalla yalla yombalal leen loolu mi ngi may fàttali bëss bobé nga xamanteni jotna babakar nako allo fo nek mu ne ma maa ngi màkk ma ne ko alhamdulilah mu ne ma foo nekk ne ko ngi mu ne ma lu xew ma ne ko nangam ak nangam ak nangam sant yàlla rek. Eh ben, mais euh, on va poser une dernière question sur ça condition euh, euh neke yi responsabilité état saoudien sagane euh, c'est le moment de poser le débat peut-être. je crois que peut-être côté Afrique parce que lépp mi ngi dépendre ci dayo gi nga xam ni moom la ñuy jox état yi parce que boo xoolee prise en charge ci yeneen dëkk yi suivant leur exigence xëy na foofu la ñu war a gën a mën a am euh, en tout cas une diplomatie sénégalaise boo xam ne dina mën a gën a mën a teg aussi ay exigence ci prise en charge yi ci loo xamante ni mën na dimbali aussi les pèlerins sénégalais ñu gën a nekk ci ay anam yu gën a yu gën a ànd ak yu gën a méngoog jamono. mais c'est vrai que organisation màkk moom euh, lu yéeme la loo xam ne tant que demoo fa nekk ci biir amna yu ci bëri buñ la koy nettali sax doo comprendre et j'imagine aussi que ñi nga xam ne organiser at bu nek depuis bobu ba euh du ñak ñu am ay jafé jafé mais je pense que l'évolution et apprendre aussi euh, à gérer autant de foule c'est très compliqué mais je crois que bu que euh, euh, équipe yi nga xamni ñom ñoy voyager c'est en général parce que ñun ñi bi dem aussi c'est vrai que c'était pas c'était pas très facile parce que déjà euh, koo xam ne mësul tukki Euh, waxuma la rek nga tukki bitim réew wala nga jóge fi ndakaaru di dem Tamba te mosoo tukki ni muy compliqué ci sa mindset waxuma la nag nga war a jóg dem aji yanu aj gi ak la mu àndal ak ibaadaat yi nga xam ne war nga koo bàyyi xel boole ci coono aj ji c'est très difficile aussi pour les pèlerins. je mhm. ci yooyu la ñu war a mën a liggéey. Mhm. ñu ñaan ujaaju leen yi ñibbisi ci jàmm euh, Alaaji Man acteur culturel euh, juin fête de la musique am na ay xumutu yu mu ministère de la jeunesse euh, des sports et de la culture mom am na waxtaan woo xam da koy organiser tay ñu la protection des droits d'auteur à l'ère du numérique ndax beaucoup de gens qui ñi jiite SODAV di bankas bi nga euh ni mooy yittewoo droit d'auteur yi sorry, tam. ben, sori itam dañ laaj ba musique mi ngi am Sénégal ba léegi mana, la est-ce que mi ngi est-ce est-ce qu'il y a de la musique la musique au Sénégal ça dépend de l'approche. bi xam nga musique dafa am ñaari approche dafa am une approche euh, dafa am approche bo xamné artistique la am approche d'exploitation xamné vraiment euh, approche exploitation la moy exploitation musique donc ñaari benn bu ci analyse différente musicalement on a de plus en plus de bons artistes de de bonne musique et de bonnes productions qui sortent mais si muy sooxee peut-être ci chaîne de valeur bi ak exploitation ak nit ñi consommer musique parce que la musique sénégalaise le modèle économique bi ak tendance de consommation yi tout. Nous avons ñi nga xamni ñom ñoy consommer musique fan la tollu à l'ère du numérique wax nga ko plateforme yi nga créé nañ tendance de consommation qui va maintenant impacter sur le modèle économique tendance de consommation moy est-ce que bu njëkk ba nañu daan consommer musique non la consommer musique ba légui dem jëndi CD dem jëndi cassette wala bok nga dem ci euh, endroit wala nga am parce par exemple une bibliothèque musicale changer à l'ère du numérique l'olmo moo andi l'émergence ci ay plateformes yu ni les plateformes numériques mais gén généralisation généraliser en général mais dafa am ay spécificité plateforme yi nga xam ay plateforme de streaming la dafa am ñaari façon dafa am plateforme yoo xamante ni dañu musique amna na ci yoo xam ne lay jox musique gratuitement donc ñi nga xam ne dañu lay musique da ngay fay abonnement ñi nga xam nak nag da ngay gratuitement musique da ngay subir li wax publicité mais amna plateforme yi ñuy wax réseaux sociaux ci biir réseaux sociaux yi am ay plateformes yu ñuy wax ay plateformes UGC mooy plateformes yi nga c'est des plateformes yuy permettre utilisateurs yi générer ay contenus yu mel TikTok wala Instagram beaucoup de plateforme bu mel Facebook nga xam ni boo ci dugalee musique jàmbur wala YouTube mën na bloquer par contre Instagram wala TikTok du bloquer musique donc da ngay gis euh, un utilisateur mu jël son ou Youssou Ndour daal di koy TikTok wala mu jël son Wally Seck daal di TikTok donc différenciation plateforme il faut que nous comprenions comprendre pour xam nous utiliser surtout pour les artistes parce que artistes en général utilisent utiliser les réseaux sociaux pour faire leur promotion mais en même temps dañuy exposer ses musique de manière tellement grande euh, grand que liñ ci perte sax moo ëpp liñ xaar. Euh, cassette CD waxi noppi euh, euh, plateforme de streaming yooyu nga wax. est-ce que ñi nga xamantene ne ñoo di artistes yi les musiciens intègrent nañ ko ndax li ñu gën di gis mom moy ñom buñu ñu génnee clip rek yóbbu ko YouTube concurrencer par rapport à nombre de vues. <laughs> waaw xam nga lolu maa koy wax depuis des années euh, d'abord bu féké da nga nek ci corporation di liggéey c'est important nga xam. Euh, fi ngay def sa musique bi nga produire. Mm-hmm. lu mu doon. Euh, YouTube plateforme boo xamante la dafay mettre en relation artiste bi ak ki nga xam ni moom mooy jëfandikoo produit mais YouTube modèle économique am boo ko comprendrewul li mu mën a jur ci ay tuuxi doone moo donc euh, def na def na ne nag euh, jamono yi ñu toll artistes yëpp ku ci génnee sax exclusivité YouTube bu njëkk ba ci télévision nga daan dem ñu recevoir la nga lancer ce vidéo mm. donc loolu nit ñi bàyyi nañu ko léegi dañuy jël rek génne d'ailleurs sax YouTube la ñu privilégié mm. boo xoolee YouTube sax la ñuy annoncer sortie album mm. loolu lu muy jur mooy dañu dem ba nga xam dañu créer une dépendance de la diffusion de la musique auprès du public à travers YouTube donc ce que veut dire que YouTube est dafa un élément pour conditionner diffusion parce que peut-être YouTube mu néew mon gars moom day fay YouTube mingi fay ñi nga xamni ni ñooy artistes ci modèle économique bo xamni amna lu ko gën hmm amna lu ko gën ah bon oui oui amna lu ko gën parce que bo xolé euh, la rémunération des artistes ci YouTube mingi basé wu ci vues hmm. mais ñaata vue pour nga am un dollar il faut se poser la question. voilà hmm. donc lolo dafa un modèle boo définir redéfinir un peu le modèle d'exploitation de la musique. est-ce que nous dem une démarche inclusive pour tax aujourd'hui ñu mën a une direction wala boog ñu dans une bonne direction mu nekk une alternative pour que la musique sénégalaise ait un modèle économique viable pour pouvoir s'industrialiser parce que lolo mooy tax ñu avancer si je prends la musique nigérienne. Euh, oui YouTube existe mais les plateformes de streaming au Nigeria payantes ñoo ëpp de YouTube qui fait que aujourd'hui la musique et l'industrie nigérienne au niveau de la musique am na mais plateforme du Sénégal pourquoi je donnerai juste un exemple. Mhm. mais. Jaba euh, musique musique oui euh, ça aussi c'est un autre problème euh, la musique sénégalaise ils préfèrent jël musique de dem sur des plateformes extérieures il y a eu euh, il y a eu Jabba Game, il y a eu Dido. Toutes les plateformes sont arrêtées parce que, un, il n'y a pas suffisamment de production pour alimenter ces plateformes par rapport à que euh, parce que ça coûte très cher. Et euh, plateforme yoy euh, manam doxal ci ben de single par mois. ça coûte cher des serveurs c'est des serveurs des plateformes yi sont au niveau des opérateurs donc il y' a plus de charge beaucoup beaucoup de charges par rapport à l'exploitation donc vous faites que dans l'économie dans l'industrie même musique ñom suivre un peu ce mindset là du mon donc aujourd'hui euh, pour nous avancer dans la musique en trois au niveau local, il est important nous une politique et une approche inclusive de l'exploitation de la musique loolu bu nu ko deful le numérique davantage ñuy dem am na yeneen source de consommation de la musique parce que maa ngi wax sànq ci modèle économique ak ci tendance de consommation mais est-ce que xam nga ni musique d'ambiance moo ëpp doole par exemple musique bi ngay teg à la radio. di artistes yu bëri xamuñu loolu parce que artistes yi actuellement seen modèle de musique lan la studio concert album alors que la musique, elle est beaucoup plus large que ça. Si tu prends la musique aujourd'hui euh, sur le sound design, les polos d'avant audiovisuel ci film série et même dans les jeux vidéo ce qu'on appelle la musique systémique la musique bi ngay vidéo tout ça ce sont des filières de la musique Il y a important aussi artistique, yi musique yamul rek ci album concert ak euh, studio. gars il y non ñi ngi jaay sax ñi ngi jaay mais dafa fekk ni rek aujourd'hui euh, li génn ci ci ci ci ci mbiru euh, euh, je veux dire bien culturel ak nit ñi ñu ko soxlaa dafa am beaucoup plus d'ouverture hmm. ah dafa am ouverture ci musique est-ce que mën nañu jël misaal ci Baba Mal ak musique générique Black Panther par exemple oui, euh, nous euh, Black Panther euh, Baba Mal, mais Baba Mal avant Black Panther, il y a une musique qui a été dans un jeu vidéo. Il faut que nous commencer. Ah. Bah, Baba Mal a d'abord fait de la musique sur un jeu vidéo. IS-814 a fait une musique également qui est sortie sur un jeu vidéo. Donc, nous avons... IS-814 a fait jeu Exactly. Mm. Donc, il y a des artistes qui ont commencé à faire un segment de la musique systémique. La musique systémique, c'est un ordinateur wala nga téléphone cette musique là elle est réalisée par des artistes la signature sonore l'identité sonore tout ça ce sont des choses qui sont réalisées aussi par des artistes mhm. même les médias même les rajo yi tey waroon musiciens de defal les génériques et ay jingle fay c'est ça le sound design. c'est-à-dire mm. les génériques d'antenne ak li nga xam habillage d'antenne muy radio muy télé c'est réalisé aussi par des. mais les médias sénégalais on a remarqué que dañuy ñëw euh, ils prennent une musique toute faite déjà. nous ben, Youssou Ndour wala Ismaël wala Baaba Ben ben Thione c'est def ko ay jingle ça quand même c'est euh, aucun effort là, de, notre part, <laughs> n'est-ce pas hein? Mais c'est parce que, est-ce que peut-être que artistes nous intéressés au segment pour offrir des services pour mhm. les radios et les télévisions Et même la, pub, sur la pub on met de la musique, euh, c'est ça euh, euh avant Sodave, BSDA, mhm. imposé au Nini, Bouni de publicité, la Musique au Djambour, Dame Louni Fay, Khomana Maham Yen Sodave, Yen Top, Pomme, parce que c'était pas facile waaw ñi ngi ci ñu ngi ci ba léegi xam nga SODAV aussi dafa nekk société boo xam ne artistes yi ñoo ko moom mais dafa important artistes yi xam aussi seen société nu muy doxee euh, d'abord pour leeral il faut que artistes yi sénégalais xam ni SODAV li muy joxe comme répartition du salaire loolu mi ngi jóge ci exploitation répertoire maanaam sa musique bu fekkee Babacar da koy teg RFM wala Georges Détier di ko teg RFM droit yooyu muy généré parce que dañu koy teg di ko exploité loolu dafa am lu ñu ciy jël defal la ko ci soda mooy sa àq ak yelef en tant que euh, euh, fentkat loolu la ñu lay reversé mais yenn saay da nga gis artiste bu dem Sodav ne dem naa fa mais aw ma fa dara nga laaj ko kañ nga gëj a génne album mu ne sama dernier album maa ngi ko génnee 2006 donc il faut que nit ñi xam SODAV société de gestion collective la maanaam day dem di jël la nga xam moy ak ak yelleef ba ñuy utiliser ci sa œuvre diko exploiter di la ko fay bu weesoo loolu artistes yi aussi xamni euh SODAV da fi nek aussi pour euh, défendre sen intérêt défendre sen intérêt moy œuvre protégée buñ koy wax moy tay loi du 25 janvier 2008 dafa tek ay matuwaay yoo xam ne permettre képp ko xamni ni kat nga te bu may wax fentkat say dañ koy ci artistes rek mais yàgg naa wax ni ëpp na euh, artistique euh, donc pour artistes yi xam ne déjà pour ñu mën ci avancer foog ñu xam seen société bu weesoo loolu SODAV euh, Soda, depuis ñu mettre en place aussi def na liggéey bu am solo c'est la fête de la musique mais c'est aussi le moment de dire que prochaine assemblée générale SODAV c'est le 27 juin

sur la protection des droits d'auteur à l'ère du numérique mhm. numérique bi wax nga ko sànq euh, ci droit d'auteur est-ce que dafa gëna euh indi euh, mbir droit d'auteur waaw gëna gëna compliqué lu tax mu compliqué parce que vous ñu aimez ci numérique sax fay pour man de fay gëna simple mhm. mais dañuy dem ci jamono jo xamni ñi ngi ci jamono intelligence artificielle mhm. mais générative tey dañu toll ci moment boo xam ni intelligence artificielle. dafay boobu bu garaaw la. waaw dafay defar c'est-à-dire que Georges mën na toog këram <laughs> mën na toog këram ñu présenté loo ko fii journal te néew fi dañuy jël baatam jël benn texte. jël baatu Georges rek jël texte bi teg euh, Georges men fekk Georges waxul sax. Mhm. boobu moom euh, bon après on on va on réfléchir sur les conséquences négatives aussi peut-être que il en existe est-ce que intelligence artificielle bi tamit euh, waruñ ko arrêté tuuti xool. lu ci baax nu jël ko lu ci baaxul ñu bàyyi ko yéen surtout artistes yi musiciens yi. Oui, mais bon, c'est pour ça que j'ai évoqué Babacar. Euh, l'intelligence artificielle générative surtout. C'est l'intelligence artificielle générative. Maintenant, maintenant, euh, la voix de Youssou Ndour, euh, cloné ko, waye ko lo xamne musu ko nit ñi dañ koy Youssou mm, Exactement. Donc danger bi moy usurpation bobu nga xamne dina ci am par rapport euh, une nouvelle façon même de pirater ou de faire faire des choses qui n'existent pas. Donc lolu mi déjà ci biir problématique musique numérique. tey IA dafa mën a créer musique mën na créer son mën na créer bind texte mën na ko way loolu mooy loolu moo xew donc aujourd'hui artiste bi nga xam ni tey dafa nekk bëgg exploiter musique am ci numérique il faut que d'abord mu xam numérique lan mooy modèle bi naka la koy exploiter te numérique nag bu ñu koy wax fii ci Sénégal ala kulli xaal foog mu jaar ci opérateur de télécommunication yi parce que dafa am dépendance parce que tey bu fekkee da nga abonné wu wala boog nga bëgg déglu musique il faut nga am passe page internet bi moo lay permettre nga am accès ci musique boobu donc opérateurs yi dañoo bokk ci chaîne de valeur boo xam ni ñoom itam foog ñuy toog di waxtaan ak ñoom xool naka la stabiliser chaîne de valeur boo xam ni ndéem daañ ci gis seen bopp waaye artiste dañ ci gis seen bopp te damay fàttali aussi récemment am na benn arrêté ministériel bu génn au niveau du ministère des finances booy imposer léegi une TVA sur toutes les exploitations euh, sur le numérique notamment le téléchargement le streaming de musique et même le cloud et cetera. ñu bëgg a wàññi dund gi ngeen koy yokk. waaw waaw. <laughs> Hum musique de Fawara Faye, parce que service là aussi c'est un produit qui se vend de consommation donc de Faye, fay mais derrière je pense que sur la chaîne de valeur war a un traitement spécifique sur toutes les problématiques qui nga d'abord à donc les consommateur bi nga déjà musique wala bok tay pour mu am accès ci musique payante bi problème la buñ ko tégalé 18 ci biir musique bobu damay ragal dootu ko laal du ko jënd day préférer dem ci dans la gratuité et quand ça devient gratuit artiste bi dootul jaay donc bu artiste bi jaayatul dootul am capacité production donc impact bobu yëpp nga xamné daf ci nekk lu mata waxtané la lu mata a aussi. mais ñu ngi jëm ci loolu. Et au, même moment, le statut de l'artiste et euh, la copie privée, euh, ce n'est pas encore une réalité waaw loolu loolu nag am na lu ci bees. donte sax kilifa yi ils en ont fait une urgence. waaw urgence bu mag parce que damay fàtte ni euh, euh, madame la ministre de la culture euh, de la jeunesse de la culture du sport et venu ñëw na Sodaf waxtaan ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ngànk Sodaf pour saytu xool déjà li fa xew et puis engagé wu ci li nga xam ni moom mooy rémunération pour copie privée et d'ailleurs euh, waxtu bii ma nekk di wax ak yéen je pense que dernier élément yi tax ñu jëmal ko fi ak fin du mois yónnee nañ ko ci ministère yi nga xamni ñom ñoo wara lekkolo ci liggéey loolu pour que euh, décret bi nga xamni mom moy permettre ñu appliquer mu mën effective te dafa nek chantier bo xamni ya gëna tay tey li ñuy rafetlu mooy tey autorités yi nga xamni ñi ngi ci bopp réew mi notamment le ministre de la culture jël na engagement te engagement boobu mu jël mi ngi nek diko euh, diko diko diko diko appliquer des na parce que liguey bo gis aussi amna yo xamanteni dañ koy farfaire au fur et à mesure y a le y a le y a le statut de l'artiste wax nga ko et dans le statut de l'artiste dinañ dem aussi même sur euh, sur euh, je veux dire euh, au-delà de la copie free le statut de l'artiste dinañ dem ci li nga xamné mom may le guichet unique naka lañuy fexé parce que bo joxé artiste statut bo mu am un statut de travailleur il faut que mo am une couverture sociale donc couverture sociale boobu mécanisme de mise en œuvre yi moy faju cotisation retraite cotisation retraite hmm. ak yoy yëpp yaa ngi nan mise la culture waxtu wi jeex na yaa ministre de la culture waaye nekkatul loolu kese ministre de la jeunesse des sports et de la culture boole googu lu leen arrangé la am lu leen arrangé wul. lu am solo la c'est une occasion unique pour créer une politique intersectorielle parce que eu musique à culture jeunesse bi da consommer tes jeunesse bi dafa soxla musique à culture donc buñu nous une politique intersectorielle bi nga engager euh, les les opportunités de chaque secteur nous nañu créer une innovation et une grande avancée sur la politique culturelle et la stratégie surtout de l'État.